jërë ngeen jëf màggat ci lëndëm ku ko dajul mu daj boppam la si nekay nañu moo waral média yi ci réew mi daje démb ca maison de la presse bi ñu tuddee Babacar Touré ubbi fa ndajem ñetti fan ngir waxtaane fa jafe-jafe yi presse ub Sénégal di dund lan moo ko sooke ak nees si def ba saafara ko assise nationale des médias la ñu ko tudde journal L'Info xëy ñu ko tuddal ci xëtamu njëkk ba bind ne presse ub Sénégal mi ngi seet nan lay faje woppam ci wopp ci sëkkatal média yi ci réew mi Mamadou Ibra Kane bu Sereps mi ne ci yéenekaay bi ne ñàkki moyen ci la bokk chiffre d'affaires bu entreprise de di wàcc saa yi bokk na ci li nar a waral fayit gi yoot média réew mi Bamba Kassé mi jiite Sampix ne ñu ci yéenekaay bi li war jamono ji moo di xoolante ci biiri gët jël baaraam bi duut ko fii miti bu ñu bëggee régler jafe-jafe yi médias Sénégal yi di jànkonteel Absa Anne bokk ci convention des jeunes reporters du ne nañu bu mu jëlee kàddu gi di wax démb jéebaane na fa jafe-jafe yi jeunes reporters yi di dund ci entreprise de presse yi Les Échos dañu xamal ne acteurs yi séq médias ñuqi nañu démb njuuma li juux ci mu neex rek jug taxawal su support boppam support beneen bu xëyee la woon démb ci assise nationale des médias yi mooy l'observateur ngi ñuy wax ne presse ne dañuy daje waxtaan sottantey xalaat ngir seet nan la def ba gën a jëmale kanam secteur bi li ñuy tënkee ci waxtaan mu di conclusion yi ngi mi ngi ñuy wax it kàdduy dëgg yamu fa yëkkati lu yëkkati mag lu ab pool d'avocat bu taxaw ci réew mi ñu ràññee ci avocat bi di maître El Hadji li leen tax a bi nee nañu mooy défendre intérêt yu état bu Sénégal fexe ba li réew mi yàqale woon ci manifestation yi fi amoon ñi ñu jàpp ne ñoo ko sooke ñu topp leen yóbbu leen ci yoon ngir ñu fay ko journal bi gis ne baaraam boobee ñu joxoñ bu ñu ko toppee ci Ousmane Sonko Juan Branco ak compagnie ci la jëm taxawaayu parti civil moom la état bu Sénégal bëgg a taxawee diggam ak ñooñee sooke manifestation yi amoon ci réew mi ba lu bari bi ne ne état bi cibleeti na Ousmane Sonko ne ko moom kay dafa mel ne alkande la état bi bëggal Ousmane Sonko ak i ñoñam gis ne ginnaaw li yàq woon ci réew mi ci manifestation yi fi amoon ci weeru mars ak ci weeru juin gi ñu génn état bi mi ngi viser portefeuille Ousmane Sonko tribune mel ne ko naan ko du bu Sénégal Macky la yéenekaay bi bind na Macky moo xippi ay gëtam teg ko ci am amu Ousmane Sonko enquête yéenekaay di ñu wax ci xëtamu njëkk ne état bu Sénégal taxaw na taxawaay partie civile ci mbiri Ousmane Sonko ak Juan Branco moom Juan Branco mu may libération nee nañu dugg si gi mu dugg si woon ci réew mi dañ ñu ko jàppaloon ba ñi ñu ñoom ak njóoguloo di gaaynu meerub sàngalkam ñan ñoo bëgg a saboté màggal gi du samay wax laaj la bu sampe ci xët mu njëkk journal la mandat tiwo système d'évacuation yi ñu daggoon ci dëkk ba moo tax journal bi wax lu ni mel ñu des ci tig tigal boobee di bawal ak journal li quotidien mi ñuy xibaar taxawaayu directeur de l'emploi di Pape Modou Fall jëm ci jàppale askan wi ci màggal gi ak ñi nga xam ne inondation de nationale ci Diourbel bokk na ci ñaari ambulance yu mu baaxee poste de bu Kër Cheikh ak poste de santé bu Madinatul ab camion hydrocureur ak juróomi moto pompe taxaw askan way dund ci ay diiwaan yu inondé mu tënku nag ci bëgg bëgg président Macky Sall bi jëm ci campagne sociale ngir taxaw askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw dimbali leen fondation servir le Sénégal bu première dame Mariam bi doon dimbali nit ñi tas nañu fondation ba journal Le Quotidien moo joxe xibaar bi ci xëtamu njëkk ba dañu xamal ne dogal bi tas fondation servir le Sénégal keroog fukki fan ak benn ci weeru ca la ko jël ñu jël Sud Quotidien waxtaane wàllu politique lu jëm ci candidat bu Benno Bokk Yaakaar ndax moom jiital conseil économique social environnemental gi mel na ne moo jekku ca des source wa nañu en ku ñu tànnul de xamal ne yàqu nga ndax modification yi am ci article bu code électoral bi tax na moo xam nga fara ci pouvoir bi wala ci opposition bi lu ñu naan rébellion interne mu di bëgg fippu ci biir parti bi nga bokk fil sa bopp sëmp sëm dënd ne da doon candidat loolee du mën a nekkati ci jamono ju ñuy jubi élection coowal trafic faux billets yi ñu tudd ñaari agent yu GIGN l'observateur mi ngi ñuy baaxee la ci enquête ba ubbil yéenekaay bi faux billets yi ñu jàpp te ñu toll ci ñaari milliards fan la ñu jugee journal bi mi ngi ñu koy leeralal di ñu waxit ñañu ciy tuumaal ñuy weddi ak firnde di preuve yi leen gën a taqal